daal leen ak jàmm am mi site internet réew mi TV li gën a fës ci bopp xabaar yi nag dañu koy door rek kàddu nga xamante ne kii di Aminata Touré daal dina koy yëkkati rek ñeel loi amnistie bi nga xamante ne rek moom lañ fi bëgg indi moom nag nee na daal faw ñu leeral bu baax yëf yi nga xamante ne rek moom moo fi daal di am laata nag ñuy voté lee loi ndax jamono ji nag ci réew mi moo nekk ab waxtaan ci déclaration publique bi nga xamante ne rek doon na ko def nee na daal ma ngay sàkku ñu indi ay leeral ci nu mu gën a gaawee fexe rek ba lu lëndëm yëpp ñu daal di koy leer leeral bu boobaa nag ñu mën a affirmer boobule bi nga xamante ne rek njiital réew mi Macky Sall daal dina koy def ñeel moo di ne nag dafa bëgg a may ñi nga xamante ne rek ñoom ñoo def yooyu le ñawteef ñu daal di leen sàng nag ab malaanu kiiraay waaye nag mbir mu nu mel du ko nangu tey duñu ko nangu ëllëg ndax nag jot na rek ñu daal di koy aborder ak li nga xamante ne moom mooy prudence bu boobaa rek ñu mun a xam ñan ñoo def ñaawteef yooyu bu boobaa ñu mën a leeral yi fii bu nekkee nag ca beneen ga rek ma ngay sàkku rek ñu daal di libéré eh, ci nu mu gën a gaawee nag détenu politique yi sans condition loolu la la daal di wax ginnaaw bu mu gisee ni rek eh, jàpp bu ñu leen jàpp nag teguñu ko fenn ba tey rek ci ay kàddu yi nga xamante ne daal dina koy yëkkati tudd na ci nag kii di kaaw Ousmane Sonko nga xam ne ab candidat la doon nag nga xam ne ab candidat la eh, li nga xamante ne rek moom mooy décision yi tukkee woon ci diwaan bu justice ba nëg ni rek dañ ko daal di ignoré ne na nag jot na rek ñu delloo ko ak ak yelleefam ngir mu mën a bokk ci processus électoral bi ci wet beneen wet ga kii di Aminata Touré nag ah, ma bi moom bu ñu ñu ko bu ñu ko voté rek ah, kon nag dinañu délibéré li nga xamante ne rek moom moo waral suñu ndaw yi ñàkk seen bakkan ci manifestation mbir mu nu mel ba tey mu daal di ci samp ab laaj rek ne nag ban amnistie yi nag la ñuy wax ak kan la ñuy amnistie yi ah, jamono ji nag lam xam daal ba xam moo di loi amnistie yi boobu est-ce que bu ñu ko defee ñi nga xamante ne rek ñoom ñoo sox bal ci yenn ci ndaw ñi wala ñi nga xamante ne rek gis nañ leen nag ñuy faat suñu jeunesse yi dem làqatu ji nag ci yenn loko yi euh, kon boobu boobule amnistie nag lan lay jëriñ nee na daal moom ci jëmi boppam bu sañoon lii di amnistie nag kenn du ko fi def ndax jot na rek ñu daal di xam euh, ñan ñoo yóbbu suñu doom yi nga xamante ne ay xale yu tuuti lañ ñàkk seen bakkan ci manifestation yi euh, kon nag jëf yu ñaaw yooyu daal ku koy màbbal moom nee na bokkul ci tey bokkul ci ëllëg jot na rek ñu daal di ci indi ay leera ba noppi rek libéré détenu politique yi ndax nag bu boobaa ñu amoon a am seen àq ak seen sañ Sène nee na am na ñaari décision yoo xamante ne rek justice ba nekk ni rek appliqué wu ko mbir mu nu mel mi ngi ko déclaré ci sunu nattango yi euh, Sud FM ba tey rek kii di Aminata Touré nag nee na juboo bi nga xamante ne rek bëgg nañ mu am ci biir réew mi euh, jaarale ko ci processus boo xamante ne rek dëgg moom moo koy lal moo ko gënal ak lii di responsabilité euh, ndax bu boobaa nag dinañ xam importance bi waaye nag dinañu xam bu baax jëf yi nga xamante ne rek moom moo fi daal di woon am bu boobaa nag nañu jox njaboot ji ñàkk rek yëkkati leen ñu daal di wax def def ab recherche xool rek fan la dëgg di mujjee bu fekkee ne rek njéggal mën na ci am ba tey rek ancien premier ministre ba woon euh, soxna Aminata Touré ne daal lii di baal bu fekkee ne daal bëgg na ñu baal kon nag jot nañu dem seeti njaboot yi nga xamante ne ñoom ñoo ñàkk seeni doom ci nga xamante ne rek moom mooy manifestation yi waaye état ci jëmmi boppam rek nekkul moom mooy dogal mbir moo nu mel mu daal di insister waat nag ne loi amnistie bi moom jarul sax ñu koy voté ndax du ñu ko nangu tey duñu ko nangu wala boobulee loi nag buñ ko voté rek dañuy màbbal jëf yi nga xamante ne rek moom moo fi daal woon am te nag loolu euh, faw rek ñu leeral ko ba noppi nag justice daal di ci ubbi ab enquête bu ko defee rek membre société bi ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy njaboot gi mënut gis seen bopp ba tey rek kii di soxna Aminata Touré nag euh, responsable moral bi nga xamante président de la république daal dina koy jël ci événement yi doy waar yi nga xamante ne rek euh, moom moo fi daal di jaar ak yi topp ci élection yi kon nag boobu le processus boo waxee ne rek juboo dina ci am waaye nag bu juboo di am rek na tegu ci dëgg ak li nga xamante ne rek moom mooy transparente mu daal di insisté waat ba tey moom soxna Aminata Touré nee na nag responsabilité ak ñi nga xamante ne rek ñoom ñoo laale ci moomule mbir rawatina nag ñi ko rawatina ñi nga xamante ne rek ñoom ñoo joxe acte pour ñu amal ko kon bu boobaa rek dañ leen di yombalal bu baax li nga xamante ne rek moom mooy seen liggéey jot na nag ñu daal di koy xam ñan la ñan ñoo commandité mbir mu nu mel ak ñan ñoo leen ko gën a yombalal mu daal di koy jeexee nag di plaider nag ci processus bi nga xamante ne moom moo ñeel juboo ci biir réew mi bi lépp rek jarale ko ci transparence bu mat sëkk waaye nag di sàkku rek ñu indi ay leeral ci événement yi nga xamante ne rek moom moo fi jàlloon li nga xamante moom mooy njéggal bu boobaa nag uh, mun a am jërë ngeen jëf ci teew lu bi bu leen fàttee abonné bés cloche de notification ngir amaat yeneen info